asalaamaaleykum macha machallah comme ni ma leen ko waxe woon mais Sister zeina la puissance comme nous koy defé sa suné tay tey dama ñëw nootu dimension fan laa nekk ne Massi Poisson kala and ak ñu né Assane Souroumle bëgg na xam tay Assane Souroumle lan mo tax mu and ak wa El media Média ñëw Massi Poisson Assane nuyu naa la waa asalaamaaleykum waa Sénégal ken ku né maa ngi leen sa tur ak di leen jaajëfal tay nak dama ñëw nag sama marché marché Poisson seet sama jigen sama xarit Ndeye Diallo seet nak nag Thierno Mbengue mi nga xam ne toor fa kàll macha allah sama papa moy sama lepp waaw Ndeye Diallo ngi ni taalibe Baye waaw ah, macha allah comme ni ko waxee rek allah bëgg naa dugg ci biir rek xool li xew ci biir ndax man damaa sob nee la puissance mooy loqatu lu ne dagam nag ah, maa ngi fii si marché poisson balaa may dem dama sama rek sama goro allah. la na ngeen def yéen ngi si jàmm. mbaa yaa ngi am jàmm. ngi am bu baax. waaw di def anniversaire am daal di déplacé wu ñëw fii tuddee bis bi sama papa Thierno nga nekk jigéenam nekk xaritam tuddee la ko tey lan nga yëg ci bis bi nga xam ne jagleel na la. bés bi yëg naa ci kontaan te yëg naa ci mbégte loolu neex na ma torop parce que du c'est la première fois Assane suñu Assane la Assane lu muy def rek ñu ngi ci biir suñu Assane la kontaan naa torop ci bés bi. en tant que jigéen ju mën góor. waaw jàmbaari góor jàmbaari jigéen rek takku liggéey daan suñu doole jigéen ñi topp ci ñun ñu leen di jàppale di leen financé ñuy liggéey góor ñi tamit ñu ngi ci. yi mu ngi ci di leen financé xaalis bu ñu ko war a jox bi Macky Sall wax na ko tudd na ko keroog Grand Théâtre lépp ci loxoom lay jaar moom prési nekk conseil ci ministre bi moom it jàppale mareyeur yi ànd liggéey. loolu lépp ci mën a wax ak nga xam ne euh, mu nekk ci ginnaaw Macky Sall. waaw nekk ci ginnaaw Macky Sall di liggéeyal Macky Sall nekk gaynde Macky Sall li tax Macky Sall jël ko teg ko ci wetam def ko conseil xam. qualité moo tax xam liggéey bi muy liggéey ci Sénégal looloo tax di jàppale góor ñi jigéen ñi ku am problème mu ngi ci taxaw fii ba Ndar fii ba Kees fii ba Jiwaalo fii ba Casamance marière bu fi dem am problème Thierno ngay woo président ngay woo soo ko wooyee moo ciy taxaw jàppale la ba sa jën dem ci jàmm ak salaam nga jaay ko ci jàmm ak salaam nga ñibbi ci jàmm ak salaam loolu mu ngi koy liggéey ci secteur de la pêche kon kii mënuñu koo fay jàmbaar la mun ñu koo fay Macky Sall li mu ko defal xam na li tax mu def ko. macha allah yéen a ko déggandoo ndax nee naa mbaaxu président sama kaw lal rek la ma fekk ndax def lu baax rek moo am solo ndax fii li nga fi def rek euh, lañ lay fayee ndax xale yi dañ koy foowee euh, sama caméraman nee naa ba tey euh, duma bàyyi danga may may ndànk rek ma daal di jege périse bi mu wax ma tey lan la yëg ci bés bi. marché poisson tey lan moo nekk yéen ñaar seen xaritoo tey ba nga sol sa daal ñëw fi. waaw fii dafa yàgg ndax dafay nit ku baax koo xamee ni kii dafa yaatal ci boppam boo gisee jataay bi li ci ndey wax mooy li nekk ndey di sama jigéen kon bu ko kii tuddee bis kon nun ñëpp dunoo war a teew kon nun li ñu war a def rek moom mooy teew xam ni bis bi sunu bisa El Hadji Thierno Mbengue mi nag nun dañ ko mënta fay ndax tey njiit loo xam ne si dafa mat njiit kilifa ñi fi nekk yëpp la te nit ñi am nañ ci moom yaakaar kon président li mu ko defal dañuy ñaan yàlla ah li mu yaakaar ci moom mu bañ a dañ te fa su ko yéenee dindi kon nag lii moom bii bis moom beneen bis la tey bisu mbégte la. ndey moo tax ma kontaan si ndax bu ma waxee ndey moo tax mu kontaan parce que ndey moo tax ma xam prési ndax moo ma indi émancipation mu nekk sama mag ñuy ay doomu ndey mu yar ma mu nekk ak man nag ma nekk ak moom ci këram kon su amee bés bi il faut ma teew si di ko ñaanal nag yàlla bu yàlla kii dara. yàlla nañ ci fekkee ak jàmm ak salaam di ñaanal président yàlla may ko kàttan ba ñu egg ci ba li mu yootu mu jot ko pour mën a teral Assane macha allah comme ni ma la ko waxee woon rek euh, wax naa leen ko léegi waxaat ko léegi euh, nee mbaax rek moo am solo ndax fii li nga fi def rek moom lañ lay fay nee naa damay randu rek dem ci Pérési mu wax ma tey lan la yëg damaa sob nag tey nag du ma yem ci bésu Assane bi euh, dinaa am fu ma dugg ak Pérési mu wax ma tuuti rek voilà comme ni ma la ko waxee woon rek ma am mbégte ak kontaante ndax moom dama bëgg jigéen ji nga xam ne jigéen ju mën góor jigéen ju gëm boppam xale jigéen yi ma fi fekk ñu nekk jigéen yu mën góor soxna si nuyu naa la waaw maa ngi lay fay sa tur sa sant ñu ngi lay ziar di ziar ñëpp ñu fi nekk ndax ñun dañoo nekk ci fii ci marché bi nekk fi nag di defante lu baax ba yàlla boole ñu maag ndey mi ñuy liggéey nag ci liggéey bu yàgg nag liggéey boo xam ne dara wutewu ko te dañuy ñaanal tamit suñu président muy tonton Thierno yàlla defal ko jàmm yàlla suturaal ko yàlla aar ko musal ko ci ndog-ndogu àdduna ndax fii ñu nekk dafa metti trop mu nekk marché boo xam ne dafa yaatu yaatu na ci gis-gis yaatu na ci xel ba pare ki bëgg moom du mës a bañ te am na noon yoo xam ne dañoo taxaw rek pour taxaw rek pour fakastal ko te ñun nag dañoo nekk rek ak appaare ko taxaw pour jàppale ko ndey nag boole maa moom mu nekk sama doomu ndey sama xarit boole maa moom ñu ànd di liggéey rek pour tonton Thierno te li ngi liggéey loo xam ne nag def naa bés buñ ci eggee tonton Thierno dina kontaan te dina gën a jàppaat jigéen ñi nga xam ne ñooy jigéenu marché bi ñu taxaw nag pour jàppale ko fii ba Ziguinchor gi muy tudd nii defe naa ne bu ñu fa eggee sax lépp doon dëgg waaw bu soobee yàlla loolu lañ taxaw nag pour jàppale ko rek ndax marché moom defe naa ne jigéen ñëpp taxaw nañ pour jàppale ko te ñun fu ñu jigéen nekk rek ci àdduna ba Pikine gii ma dëkk nga xam ne Pikine ñëpp koy xëccoo defe naa ne bu ñu fa eggee dama ci doon waxtaan ak ndey bu ñu fa eggee ba monteel ko fa selil defe naa dina gën a kontaan ndax man moom nitu nit ñëpp laa man moom defe naa ne yàlla jàppale nañ ci baat boobu te fu ñu taxawee wax ak jigéen danañu tontu yàlla nañu yàlla suturaal jàppale ñu si barke Seydina Mohamed ba fi ñu bëgg a egg yàlla eggale ñu fa ba tonton Thierno tam fu mu bëgg a egg ca président def naa ne egg na fa waaye la gën raw nag lañ bëgg ba mu fekke ko ñun ñu fekke lépp ba kenn bañ a suñu ginnaaw yal nañ ko yàlla dafa si barke Seydina Mohamed barke sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne nag moom laa yaakaar tey ak ëllëg yal ko yàlla suturaal suturaal ñu ñun ñëpp ak mboolum jullit rafet na macha allah yi a ko dégg déggandoo comme ni mu ko waxee woon rek di naan foo dem rek ay noon ñoo nga fa mais yàlla mooy xam lu muy def di ko def nee naa la ba tey duma bàyyi ah bàyyeeguma ba tey ndax dinaa loxoti tey li nekk maa si pension bàyyi ah, fay naa la mbaa yaa ngi am jàmm waaw maa ngi am jàmm alhamdulilah tey ñëw fekk la fii hmm, waaw ci marché poisson ñu ànd ak Thierno Meng rek di liggéey président des mareyeurs du Sénégal ñu ànd ak moom di liggéey ak suñu présidente de mareyeurs du Sénégal muy Ndeye Khoudia Diallo waaw rafet na eh, Eh, ci Ndeye Khoudia Diallo xanaa mu nekk sa rakk nekk jigéenu jàmbaar jigéenu fakk jigéen joo xam ne macha allah ba mu liggéeyee booba xale bu ndaw a ndaw ndaw la daf papaam dafa papaam dee mu liggéey ndeyam di liggéey Africa Mer mu xool ne yaa mi ngi sonn Ndeye Khoudia Diallo jug rek am jom takk ndiggam nekk taaw nag yor ay rakkam takk ndiggam ba mu dëgër nag woddu sëram ba mu dëgg ndax nekkul newul kenn ne bàyyi naa la yàlla wala su ma doon góor dafa nekk jigéen takk sëram takk takk gañoom nekk góor nekk jigéen jàppale ay rakkam macha allah jàppale ndey ma macha allah a ko déggandoo nee naa Assane lu mu dugg rek du yomb ba tey du ma bàyyi ah damay randu rek ba keroog may egg ci Périsie bi. Média ah, ba tey may ànd ak ñoom mais sama mbokk internet yi nga xam ne yéen a may xam naa tey nag di ngeen jombi comme chaque jour ni ngeen koy waxee thé noir bi dafa rafet mais tey gis fay. mbaa yaa ngi am sant bu baax. tey ñu ñoo fekk la euh, marché Panson ñu ñoo fekk la si sunu euh, Périsie bu baax bi ñu ñoo fekk la ci bureau waa loolu moom boo ma si laajee macha allah dam si sawar tonton Thierno moom ba dëgg yàlla mooy suñu lépp mooy suñu président macha allah nangu na liggéey am na jom am na fulla bëggul alalu jaamur te yërëm na jigéen ñi yërëm na góor ñi ndax man xam naa ci dara ndax financement fii ci bureau bi man maa ko yor góor ñi sax dañuy ñëw ci man ne ma tonton Thierno nee na nga financé ñu dafa bëgg koy liggéey. doxul ci tiaxan ci dara mu liggey le gem téere alquranam bi bu xeye suba bala mo def dara mom lay ndeka tek fi ma sha allah dañ koy ñaanal gudd fan bu and ak ak la ba lu mu mën ren bu déwénee yalla na mën lu ko ëpp ndax mom nit mom, way dimbali nit ñi ta yalla rek tax sentu wo ci dara yalla mo lay fay ñu koy wax nak ñu ci ginnawam ñun ñëpp ñun wa ma centrale ñu ci ginnaw tonto parce que amuñu mom man barki dem la sama yaay gañu xeebu ma dara dara taal autom def délégation ma sha allah ma koy sant ci lolu ñep la koy defal fi ñep mom dafa oyof oyof oyof xala bu ndaw mun na ko yendal fi problème yeb lay ma sha allah lu mu yegg ak lu mu yëgul yëpp mu ngi ci dox mu ngi ci wax sha allah dañ koy ñaanal rek lu mu mën dañ bu déwénee mu mën lu ko ëpp financement yi gëna bëri liggéey bi gëna ñew lepp gëna ba ndax mom ma sha allah dafa bëgg Macky Sall suñu président bu ñaawul boobu moom Tonton Dieng da ko bëgg. lekkul naanul ndax président moom la bëgg ci lay dox ci lay wax saa yu xëyee ci loolu lay dox kon na dañ koy ñaanal rek ci li mu jëm te ndooten na jàppale ci Macky sàll ba li mu ci bëgg yàlla na ko ci am premier tour rek mu dóor gaa yëpp jël affaire bi. <laughs> macha allah yéen a fa déggandoo ma taxaw ak sama seex bi muy Téenoir comme ni ma wax waa Elvision Elvision euh, Média teg leen foofu seen loxo rek ma ñëw te ngeen bañ a tegg Téenoir bi ndax tey gis naa ku ma dàqale Téenoir. <laughs> wah, wah, def woon na ca gan la cat dijj dëgg da ko gën a wóor li tax ma wax law ba mbeng dafa boole mbul ak làmbaay te kenn merul bëgguñu fonk ñu teg ñu ci place te ku ne xam na ne ñaq tedd rek la ñuy dundee ñu gëm sunu bopp ñuy ay jigéen yu gëm suñu bopp jigéen yu nangoo liggéey di xëy 4 matin di ñëw ci marché bii tubaarkalla macha allah te dara ñaawu ci mu ko ñu nag. bëgg ñu teg ñu ci place te dara ñaawu ci waaye laaw la cet ca ndey jàllo jàllo jéeri la yaa fi defoon dóor waar yaay jigéen ju mën góor yaa tax ñun taa yella tunu ndax yaa fi tubarkalla nekk en état de grossesse di yëkkati kees yi di teg boobu ba léegi la da ñoo gën a yokk jom ñëw bon peut que li ma gis sama jabar ba téye ko Assane mii tamit loolu la si gis parce que tey bon bi ñuy xamante Assane dara ump ko si quoi nit ku baax la lu baax lu ne da ko siy wax da ko siy def da ko siy dox bon sama jabar nag nit ku baax la bon mën naa ne Sénégal su ma neexee moo ne maa fi gën jabar quoi francement parler du ay dóor nag lu am la parce que nit ku nekk la ngay dund yaa ko xam quoi mais yàlla seede na ne bon bu doon benn bu baax si Sénégal mën naa ne maa ko yore di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ko wa gis nga li rek mo gën sa jëkkeur daal lay tag daal lay waxal li nga xamne moy lu bax feñna ci kanam gi feñna ci li nga xamne moy euh, wax ji macha allah mbaax rek mo am solo di doli sama moromu jigen ñi rek nañ def lu bax ndax ku def lu bax rek am lu bax neena la ba tay duma bay ha ah maa ngi pension rek ba keroog ñu may xëpp jën bi duma musa bay président ñi ngi sa jël li ñu yor lepp tek ko ci ginnaw Papa Thierno meng ànd ak di liggéey ngir nga am mandat 2019 en première tour. parce que lool mooy suñu wareef loolu la ñu waaye nag ku ne xam ne ni réew mi fi mu tolloon bu ak fi mu toll léegi ku xam ne ni macha allah def na ay jéego yu bëree bëree bëri. Papa Thierno ñu ngi lay santaat di la gërëm ndax wax dëgg yàlla ku ñëw marché poisson gis nga téye suñu yaay suñu sœur yi xam ne macha allah yow président Fallou la rek nga toog ak say tànk. ubbi nga sa juróom sa téléphone ku la woo jot la yaa ngi liggéeyal président Macky Sall am solo macha allah kon Pape nañ lay ñaan. yàlla ndomba tànk yi yàlla noonu ndomba tànk yi yàlla na yàlla boole président élection yi ñu dum yàlla may ñu dum ci bismillah rahmaan rahim yàlla may ñu ndam bu rëy rëy rëy yàlla am comme ni ma leen ko waxee woon nee naa nit balaa nga koy xam faa nga dem ci ay moom comme ñu wax la moom mooy kan ñu ñëwoon seetu suñu papa Thierno macha allah mu nekk président nekk marché poisson ñu ñëwoon Assane euh, Diop ma si jëgle ko am euh, président ñu naan. waaw maa di baax di nuyu di leen dañu maanaam di xale bu am solo xale bu am talent am fulla ci li muy def donc suy def anniversaire am nekk bi moo nekk troisième fois bi ñu mu ma ca Praye vraiment ma di ko defal trop ndax moom dafa am cër ci marché bi ndax nga xam ne Ndeye Khoudia Diallo mii mu nekk présidente femme mariée ANAMS yëpp moom mooy seen présidente man day xujje moom par santé Assane vraiment Assane ku baax day xujje itam am taxawaay ci jigéen ñi da jigéen ñi si toog yëpp tey mën naa ne jigéen ñi kenn ëpp leen di doole parce que tey xam nañ marché central au poisson wala mën naa ne la pêche yi tey bu ñu doon soixante dix pour cent lañ ci ci ci pêche bi jigéen ñi kenn ëpp leen ci doole te quatre heures jigéen ñi waaye te booy wàcc dix heures wala neuf heures fi nga leen di bàyyi

donc secteur de la pêche yëpp nga ko tuddee. muy pièce la muy mareyeur muy transformation jigéen ñëpp ci lañ bokk parce que ñun dañuy benn bopp lañ. kenn mënuñu xar ñaar kenn ay la ñëpp ay la nañ kon Assane jëlee jox ma ko mën naa ne secteur de la pêche la ko jox. donc yaakaar naa xaw ma fu mu koy mën a defee mais foofu dina xam ci secteur de la pêche parce que ñëpp daañu puus. macha allah yéen a déggandoo président yi nga xam ne wax na ko mais président damay dugal yow feneen ndagam puissance dafa sopp nee naa day kanaan defal lii mu def la euh, président ñu jël wàll ñi nga xam ne mu nekk maraichage bi nekk ko solo ku nekk xam ne bëri boo tasul ginnaaw moo dégg sànq euh, si nit ñi lu ñuy wax da ngay jëlee li nga xam ne mooy wàllum xaalis euh, nga koy defee président nan ngay dundee loolu. waaw marché poisson sax euh, man naa ni dafa am directeur directeur marché bi muy Abou Mbaye man dama fay nekk jiite organisation association nationale des mareyeurs mais nekk au niveau national parce que nit moo fay marché bi mais dama fay ak yeneen marché central yi ak yeneen marché yi jiite mareyeurs yi donc muy loo xam ni. comme ni ma koy waxee rek dañ ci sant bu baax président Macky Sall ndax li tax ñu ko sant mooy suñu secteur musique de la presse ku ne xam ne dafa amoon jafe-jafe 2010 ay jafe-jafe lañ doon dund bi fi génn ku xam ne dafa jaayan géej gi le président Macky Sall ñu xool ko amal ci moom yaakaar jàppale ko pour que moom bu jëlee réew mën a defar secteur bi alhamdulilah mu ñëwee nag vraiment defaraat na secteur la presse ku xam ne tey suñu ministère de la presse ñu ngi vraiment ñu ngi ministre bi taxawaay bi nga xam ngi koy taxaw ci mareyeur yi ndax tey àgg nañ foo xam ne kenn mos fa dem. parce que le président Macky Sall bu jël ko loolu ñaar fukki milliards. def yi képp ku jënd machine car am nga fa million. loolu ci secteur de la pêche. si les sauveteurs ñu ko doon jaayee 15000 président yi bu gouvernement di kenn nañ ko moo ko def. camion frigo yi ñor mu ni camion dafa màgg dama leen koy sensé. mu nekk nit ñi am programme 1200 camions yu bees. donc deux 2018 bii war nañu am 400 oto 2019 400 oto 2020 400 oto loolu yëpp boo ko xaymaa day jàpp 38 milliards te lépp président Macky Sall moo jël ay engagement pour bëgg secteur bi nekk ci ay conditions yu baax gis nga jigéen ñi daan lakk keccax nga dem ci dëkk yi gis saxaar si fu nañu fay kii yooyu yëpp président na fi jóg defar ay sites yu bees Yohani, xam ne ay 500 millions ay 400 millions dëkk boo def tey si jaay fa ñu defar ko immigré nañ yenn yéen ñu nekk en chantier loolu yëpp président moo def waaye aussi tam ci njàmbaar la ministre la pêche Omar Gueye loolu taxawaayam la comme ni ma la ko waxee rek jigéen ñi dañu ma jàpp dañu ma doole parce que tey fépp fu ñu canna mbay nga def ak benn rek comme ni ma la ci doole kenn mënu leen ci liggéey man damay di bu baax ci gi ak man ak dama leen di remercier vraiment ngir ànd tamit sama seen bu baax sama jër baax bu jiite le jeune de Baliye. vraiment mu. mouvement Ambès mouvement Ambès. ñoom tamit di ñoo xam ne président Macky Sall kese moo leen ñor. ñu ñëw fii tey vraiment ni ñoom dañu fas yéene ànd ak ñun jàppale le président Macky Sall. wax naa leen ko sànq nee naa leen ci kattanu yàlla président dina toog ak yéen. pour ku ne xam nañ 2018 année sëñ yi la. président fi yëkkati fanweeri milliards teg ko ci taabal ji. sëñ yi ak jigéen ñi ñoo ko moom. waaye nag grand théâtre mu ne damay dellu secteur de la sax dañu génne ñaari milliards teg ko taabal ji mu ànd ko ak ñoom pour liggéey mais ngay xew ni fan yi néew dañ jigéen ñi ak seen yi waaye li ñu secteur ko fay ndax ñun limité wuñu trente ak quarante ans ca kon ñun président mën ñu ko fay ñëpp bëgg secteur de la pêche wi ñekkuwaat naa ma nekk sax démission ci présidence bi loolu cër la aussi secteur de la pêche parce que amul benn président bu mu taxaw jël benn cër jox tey jii maa ngi nekk ci cabinet bu soxlaa gis ko mu may yónni ay mission may dem ñoom kon loolu ñu ngi si kër mënuñu ko nag marières yi maa ngi koy jox rendez-vous xam naa 2019 ci kàttanu yàlla ah xam naa élection yi passé na recevoir nañu ñu am luñ ko waxal ci local yi am na lu ci gis na jàpp naa ne 2019 bu ñëwee. dina gis lu gën a kawe njort lool parce que marié bi la lebal guddi ñoom ñu fay la kenn. waaw président man ñoo fi doon dégg ñu ne maanaam euh, góor ñi liggéey ñu jigéen ñi liggéey ñu ñu fekk macha allah ay xale yu góor yu bëri ay xale ay ndaw mun naa ne sax xale yi nga xam ne 15 ans lañu am wala 12 ans mu ñoo fekk leen fi ñuy daal seen doole macha allah. waaw bi ñu ñëwee xam nga man dina créé organisation bi parce que man marié laa dama gën jën di jaay. su euh, may camion laa dama dem Tamba marié la ñëw foofu ma toog fii jiite leen yàlla dogal ma ñëwee nag di organisation bi dama dem seet banque ba Louga Commercial moom ko def convention nationale pour ñu am ay financement ko jox jigéen ñi tey boo xoolee fii ci marché bi banque bi nekk fii mu mat 600 femmes jël nañ fi prêt ñu boole 5 femmes yi nekk am 1 million nañ ko Mbour def ñu ngi def Thiès nañu dem Saint-Louis Touba partout tey lu mu gàtt gàtt jëlee na ma 300 millions yoo xam ne séddale nañ ko ci jigéen ñi ak ci sëñ yi léegi nag loolu bu président ñëw doon ñu 2 milliards ñu gën a renforcé daa ni man ni man bëggatuma gis même ki nga xam ne xaayu kees lay jëndee bëggatuma gis muy dem di lekk mu yore xaay koo xam ne da koo jëndal ko ba pare am na mën méthode boo xam ne jël nañu ko boo xam ne tey kenn ku ne nga am xaalis boo xam ne tey du dem ci marché bi lekk parce que fii ci marché bi boo su fajaree da gis étranger yi ñëw seen moto yi suñu la lebalee dix mille su ba jigéen nga fay douze mille wala dafa metti te jigéen ci loolu lañ doon dund ay at yi at at waaye bi président ñëwee nag changement am na ko doon na koy dem dugal na deux milliards yoo xam ci dañ ko war a déggee séddale ci seen i at ci jigéen ñi

naa ne nee naa Assane Mouhamadou programme bi ngeen di ngeen ñëw sama programme parce que li ma gis ngeen ñi ko média c'est lu am solo la parce que média bi mu leer tegu ci aw yoon ñu am lenn leen ci kii loolu dafa jafe di ñaanal directeur bi rek bay ki ci suuf yàlla jàppaleen télévision gën a nekk ay télévision yu bare bare également di ñëw ci wàllu Assane di ko ñaanal xam ne bis bi moom beneen beneen bis lay doon ci bis yi di invité nag Sénégal yëpp di invité aussi artistes yi mais vraiment di invité euh, yëpp ñu ñëw parce que Assane suñu nit la suñu xarit la vraiment ak Ndeye Diallo bi nga xam ne aussi moo jiite femmes yi nee naa ko benn bi ba bis bi. Ah, bi nga xamante ne moom la la as tuddee sa lettre baa ngi noonu. di la ñaanal yàlla suñu borom yàlla na yàlla dëgëral taxawaay bu baax. yokk sa fan yu gudd. dafa la teraanga am na palaaxira ba lépp loo xamante ni yaa ngi ko am yéene ci président Macky Sall. suñu borom dimbal la yéene bi mat sa lettre ngoogu muy sa xarit ni ñu ko waxee sa jabar Assane Guéwél ñoo ànd ak ay doomu ndeyam ànd ak ay communicateur am kontaan nañu bu baax ci recevoir bi teranga ji bëri na yàlla na fi yàlla saxal sa lettre ngoogu buñ jugee foofu dañuy jox ki nga xamante ni mooy Ndeye Diallo taalibe Baye Niass mm. kii miin nañu terangaam miin nañu kër miin nañu boisson miin nañu añam mm. chéri Adama yàlla na àggaleeg sabam mm. lépp loo xamante ne nii sub nga ko rek suñu borom yàlla na def nga jot ci ak jàmm mm. ndax yow boo amee rek waa département de Pikine ñëpp a am sas bi rëy na jigéen ñëpp a ngi sa ginnaaw góor ñëpp a sa ginnaaw ñu lay tuddee ay bis chaque année ñun fu ñu ñëwee nga yëkkat defal ñu ay teranga kon nday jàll loo mën ren lu nekk yàlla nga mën déwén lu ko raw yàlla nga àgg fu sa mi ngi leen di sant di leen gërëm amul say fat du ngeen ko xeet du leen ko delloo ginnaaw benn yoon lépp loo xamante ne ni rek asan a ngi ci rek yow nday jàll yaa ngi ci koo xam ku baax boole nga ko moom boo ko yëgee boo ko yëgul Assane mi ngi lay sant di la gërëm ak staffam ñi muy àndal ñëpp ñu ngi lay sant di la gërëm bu ñu gesoo foofu ñu dellu suñu ginnaaw suñu yaay yi Adja mat leen nee naa ko léegi doomu nay a jàlloo man sama yaay mat leen lu tudd moo taxit yaay sama yaay sa lettre ngoogu sa bisa ngoogu sant naa yàlla bu baax kontaan naa ci lool lool lool maa ngi woo waa Port Maul district bu kenn manqué na ñëpp ñëw marché poisson bu kenn manqué na ñëpp ñëw kontaan naa vraiment